at قالوا على سريعتي شيخ سيد احمد التجاني مصدر اللطائف مورد الحقائق شيخ سيد احمد التجاني العالم بالله قالوا على الله شيخ سيد احمد التجاني واخنا في كوبك سي احمد التجاني نيك في بلا نيه nga ni hadratul imani hadratul islami hadratul ihsani بلا نيه nga jakarlok cheikh ni ko haynul tuqa haynul judi haynul rahmati haynul inayati haynul minnati haynul madaya haynul makarimi haynul sahadati haynul ikhlas cheikh tijani moy ihsan buhul ila moy ainul wusuli ainul haqqi ainul ma'rifa عين اليقين عين الأسماء عين الذر عين المكنون عين الذات شيخ سيد أحمد تجاني ولا نحن صاحب القتمية ولا نحن صاحب الكتمية ولا نحن أبو الأباشي أحمد تجاني أدلولو كتا من عزير على غدنا ينتي على أحمد يا متسابقا ركباني نحو الجنان روحي وريحاني شيخنا التجاني أدي الألوكة من أصير على ختن قاسي العواجس مدة الأزمان جل مكة لنقن kooku mo doon rasulillah gis nga buñ la laajee kan mo doon rasulillah neel moy Cheikh Ahmada Tidiane buñ la laajee kan moy khalifa rasulillah neel moy Cheikh Ahmada Tidiane buñ la laajee kan moy jàngale rasulillah neel moy Cheikh Ahmada Tidiane buñ la laajee kan moy buntu rasulillah neel moy Cheikh sayyidi Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu wa ardahu ana bi amin asrari qatmiyati wal katmiyati aba saahibi alfaydi al akbar من جمع بين شرف الجرثومة والدين وشرف العلم والعمل واليقين كامل الأنوار والمعاسن قوي الظاهر والباطن منور الصيب جليل المظهر بهي المنظر وكلمة نافذة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحب القيرات صاحب الفيوضات صاحب البركات مولاي الأباسي شيخنا أحمد التجاني ورضي الله عن جدنا المجاهد الأكبر مام أحمد داكسك رضي الله عنه لا سيما شيخنا المكنى ببرم يلا نينا سادع الله مغفرة ورحمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه مولانا أبي الأباش شيخ أحمد التجاني بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ñaan jammi yalla njeggal yalla yermande yalla yalla ko yalla sotti ci jotay bi ku fi indi aajo yal na ko yàlla faj ku fi indi jàngoro yal ko yàlla saafara ku fi indi bàkkaar yal na yàlla jéggal la ko ci barke rasulillahi mu mel ni dañuy ubbil sëriñ bi rek kàddu yi du gudd ndax ku ne xam na ni jotaay bi yàgg na te toogaay bi metti na lool te lu mel nii ci lañ jóge waaye dafa fekk di yaakaar dafa am coxeel macha allahu looloo tax ñu yëkkati kàddu yi ñu ngi nuyu. ci leen TV leeru diine ci leen TV leeru diine yàlla guddal fanam yal yàlla yokk wéram yaakaar na tey jii sonn na lool waaye li muy sonn sonn yépp daf ni bisu Baye Ndiassé bi moom dana bàyyi te yépp ñëw di nuyu tabaarakallaahu ñu doon tudd yàlla ak ñi doon tagg yoon yonent yàlla Muhammad يرنت بيننا ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي الا كان عليهم عصره يوم القيامه يرنت بيننا جوتاي بون توك تا تودو نيو فا يالا جولي وون كي سيدنا محمد برت نان كون جوتاي بي بوكو جي دي نيو تبارك الله سونو ماك ييغا خامني ньо تارال جوتاي بي ak sunu yaay yi nga xam ni fa tabaraka allah ñoo fi teew jigéen ñi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuy di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tabaarakallaahu sunu caméraman yi ku ci mel ni ci leen TV tabaarakallaahu ak Serigne Sidi Ndiaye yal na yàlla yàggal seen taxawaay nga xam ni seen taxawaay lépp seen programme yépp diine rek la ñoom boo leen bëggee gis rek ñëwal ci lu mel nii tabaarakallaahu ci leen TV sunu. xarit sunu soppé serigne Madike yor ko na ngeen ci abonné yeen ñep hmm ndax al aqrabu awla hmm? fa tabarakallah na ñep abonné ci kilen tv TV sha allah yalla na guddal sen fan yok sen wër ñi ngi nuyu bu baax tabarakallah ki nga xamni moñu fi taxada a daje ñun Baye Ndiasse sal di ñaan yal yalla guddal fanam yal yalla yok ak wërëm lii rafet na jaadu na Baye Ndiassé tabaarakallaahu liggéeyam ak taxawaayam ci kër maam Ahmadou Ndack Seck radiyallahu anhu fa tabaarakallaahu jëkk na jaadu na ngeen jël lu mel ni jox ko ko ni dañ koy sargal fa tabaarakallaahu ndax taxawaayam ndax ñun ñépp dañoo gimmi rekk xàmmee ko ndax ci taxawaayam rekk kon Baye Niass yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla sàmm la yàlla na yàlla taxaw la yàlla na yàlla aar la Baye Mbaye Meng ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax Baye Ousmane la tabaarakallaa gisuñu ko woon ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko jox wàcc waayam di nuyu mboolem muxaddam yi fi teew ndax yaakaar naa kenn ku ne mën nañoo lim sa tur fa tabaarakallaahu te comme que bëgguñu mu gudd sëriñ Pape Sall nee na ma gàmmul ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala xaw ma nu may def kon kon daal ni ma koy defee mooy damay dugg ñetti bayit ci ibnul muhayyib ñetti bayit ci Cheikh Ahmad Tidiane yi te joxe micro bi xutbil aarifiina imaamina kon dama bëgg njëkkee ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di tëjee ci Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu ilaahi bi xutbil aarifiina imaamina dama xamul nag ban ñetti bayit nga may tànnal tabaarakallahu sëriñ muhammad ilaahi bi xutbil aarifiina imaamina sama aada fu ma dem bala maa wax dama naan kenn ku nekk nga. ci leen TV leeru diine ci leen TV leeru diine. sëriñ Bàcc Sall sëriñ Caama ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di rafet lu taxawaay bi. sunu téere maam bi nga xam ni moom la ñu maam Ahmadou Ndak bàyyeel moo taxaw tey jii nag di taggal Baye Ndiassé Sall rasulillahi laqad faza wa laba wa taafa wa saaro yenti Yàlla kon tey Baye Ndiassé moo aaye moom la ñu war a firil Ibnul Muhayyib waaye moom la ñu war a joobel Cheikh Seydi Ahmad Tidiane texe na ñu ni ko ku texe mu ni man labba ku yàlla may nga dem ba jàkkaarloo ka ga ni allahumma labbayka la sharika lak labbayka inna hamda wan ni'mata wal mulka lak la sharika lak labbayka yow texe nga laqad faza man labba wa taafosaaro yant yàlla muhammad borom inu muhim ne ku yàlla may wataafa nga wër ka ga xawma ku texewul way yow texe nga laqad faza man labba watafawzaro yent yàlla maamaat borom inu mahim ni ku yàlla may wazaarahu nga ziyaara ji bàyyi abdullahi bàyyi qasim bàyyi ibrahima bàyyi saynabu bàyyi umu kalsum bàyyi fatima bàyyi roqaya ku yàlla may nga ziyaara ji ko taxe nga wa marraqa bi daaka turabi zaro yent yàlla maamaat borom inu mahim ne na ku yàlla may sa tànki bi nga joggi ko fan denc soppe ba sayidna muhammadu rasulillahi xaw ma ku taxewul waaye taxe nga laqad ba wa tabu zaro amarraqa fi daaka turan bi daaro yant yàlla maamat ñu ne ko waaw borom inu mox yi am na ñoo xam ni bëgg nañoo dem màkka mais amuñu paas bu leen yóbbu ca màkka wala amuñu wér-gi-yaram gu leen mën a may ñu ziyaare ji rasulillahi ñooñu nu ñuy def wayn kuntalam nabluq aw xëyi diwaaro yant yàlla maamat ay borom mi nu mahim ne wax ji bu mu bëri nañ bëgg rasulillahi buñ bëggee njol màkk rek ndax wa kam qaa'idin yadnu ilayhi wa lam yamshi la borom mi wax yow bi rasulillahi narjo yaaro yonte yàlla muhammad borom mi nu mahim nee na wa kam qaa'idin bëri na aji toog fii ci senegal koo xam ni yadnu ma ngay jege ilayhi ca njol màkk te walam yamshi ziyaare jiw rasulillahi mi ngi toog fa mu toog te moo gën a jigee nañ ziyaara ji rasulillahi rasulillahi dox bi rasulillahi narjo jaaro ku ci gën a bëgg sayyidina muhammad moo tax borom inu muhib nee na bi rasulillahi ci bëgg njol makka narju ñi ngi yaakaar ci bëgg gin ko bëgg جواره بألقى ندك مم مم سيدنا محمد رسول الله وكل محب فالحبيب له حسبه جل ما كيال ينقل برم إنه مهم لنا كن نكون وكل محب كن نكون كن بق دعينا لسك ينن كن بق ماي كن ماي سيدنا محمد رسول الله موتق ألق ويوم القيامة نيجي ياكر دك مم تبارك بق جن كو بق مم رسول الله مديه نبي الله أسكات حبودي أنت يا الله محمد sëriñ Pape Sall borom inu mohib nee na lii ngeen di def madihu nabiyallahi tagg yonte yàlla Muhammad aska tahabudi moo gën a sell ci jaamu yàlla yi lima xaasa min fadlinu wa faqrinu wa sudadi yonte yàlla ahmadu ey sëriñ bàcci borom inu mohib nee na lima aasa ngir lim làq moom rasulillahi min fadlin lépp luy ngëneel njol màkk làq na ko wa faqrin lépp luy ndam wala puukare njol màkka làq na ko wa suudadin lépp luy sang rasulillahi làq na ko moo tax tagg ko moo gën a sell ci jaamu yàlla yi moom rasulillah yi. من يدلله بتوددي ku ci gën a bëgg Seydina Muhammad borom Ibnu Muhim nee na même ki nga xam ni munta yor micro di way wala muy yor micro di firi comme ni ma koy defee nee na jëlal sa kurus nga naan allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaqi walhadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari azim ndax benn peru salaatul fatiha li muy tollool mi ngi mel ni juróom-ñeenti téeméeri junni wala ci ay milliards bu bokkut ak julli gëneen gu ñuy julli gu bokkut ak salaatul fatiha taalaw taalaw fadili نبي محمد جل ما كيالين جن لولا تحسن شاب بسرين مديك سك بيميجن أدنى وخل جنجل لين ما الله مسلي على سيدنا النبي الأمي وهاي بيمتن موي بيجن فارت موي بن ما الله مسلي على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق والقاتم لما سبق الناس للحق بلاقي والهدي إلى صلاتك المستقيم كن بابو سرين مديك مني جنجني صلاة بيجن فار موي صلاة الفاتح كذا بتوصير لك أن ما يجرى لو فنلي nabi muhammada ah, jol makka yaa leen gën borom ilmu mahib nee na yéen ñi bëgg a ma taggal leen jol makka taalaw kaay leen ci man fa hindi nekk na ci man li nabi ñel yonte yàlla muhammad muhammadun bu la neexee nga ni ahmadun hamidun hasirun haqibun taaha yaasin tahirun mutahirun musammilun abdullahi habibullahi safiyullahi kalimullahi xayullahi najiyullahi dama bëgg ngeen def ni ñu màgg rasulillahi xaatimul anbiyayi xaatimu muhyin منجن مذكر ناصر منصور مدهو مجيب مجاب خفي حق ولي كريم مؤمل وصول ذو قوة ذو عرمة ذو مكانة ذو عذ ذو فضل مطيع متاح بسرى غوز غيس خياس الله نهمة الله هدية الله هروة وسخى ذكر الله حسب الله سيف الله نجم صاحب مصطفى مجتبى منتخى مختار أجير جبار عبد الله كجر هازم جركو هذو مناف جركو حسي جركو كلاب جركو مرة جركو كعب جركو لوي جركو غالب Malik jur ko Fihrin jur Malik Jurko, Nadar Jurko, ko Kinaanata jur ko Husaymata Jurko, ko Mudrikata jur Ilyas jur Mudar Jurko, Nidar Jurko, Maad Jurko, jur Jurko, Adnaan jur ko Alaaji Malik nee na kuy lim rasulillahi ba nar a wees wa Nidaran mahaddan man yujaawizu Adnaanan fatakdibu qad jaamin alxalami limal nga ñu maami góor yi yu maami jigéen yi fuhunna fatimatun salma wa atikatun hubbe wa fatimatun hindun lahunna shimi waxtiyatun bintu shaybaanin سماوية بلواوي سلمى ولا لا هد لم تلمي هنا جندلة لا تنزع وبرت سما بنت الزهد ذي الكرم واي فوف لاي جاري نك دال لي ليمال مامي سي احمد التجاني سريفي انا ني بك شيخ سيدي احمد التجاني الهي بقلب بالعارفين امامنا motax tax ko jur Mahamad Ahmad ko jur Ahmad muhtar ko jur muhtar Ahmad jur ko Ahmad muhammad jur ko muhammad Salim jur ko Salim hid jur ko hid Salim jur ko Salim al Alwani jur ko al Alwani alim jur ko alim abdullah jur ko abdullah Abbas jur ko Abbas Abdul Jabbar jur ko Abdul Jabbar Idris al Akbar jur ko Idris al Akbar Idris al asghar jur ko Idris al asghar ishaq jur ko sayyid al habidin jur ko al habidin Ahmad jur ko Ahmad muhammad Nafsu Sakki ya jur ko Mahamadou Nafsu Sakki Abdoulaye Kamil jur ko Abdoulaye Kamil Asanu Musana jur ko Asanu Musana Asanu Sibti jur ko Asanu Sibti Sayyidatuna Fatima jur ko Sayyidatuna Fatima Njol Makka jur ko ñi ñooy maam yi si Ahmada Tidiane ya rahilan mutasabiqan rukbani nahwal jinani ruy سيكون تجاني أم المروم دملا لمل تر رسول الله واي بلني هنغر لم تر سي أحمد تجاني بلني هنغني شيخ أحمد تجاني بلني هنغني أحمد تجاني بلني هنغني أبو الأباسي بلني هنغني أستاذ الطريقة بلني هنغني شيخ الإسلام بلني هنغني حجة الصوفية بلني هنغني منبع المعارف بلني هنغني مصدر اللطائف بلني هنغني سمسم الأسرار بلني هنغني معدن الأنوار شيخ سيد أحمد تجاني بلني هنغني الوارث المرب muhammadiya bu la neexee nga ni saydul murabbi saydul muraqi saydul nafihina saydul awliya yi sa turandoo saydul wasilina saydul kamilina saydul arifina xudwatul imami xudwatu salikina taajul xaarifina alalimu billahi addaalu ala allahi addaalu ala sariati cheikh saydi ahmad tidiani masdaru lataifi mawrudul xaqaiqi cheikh saydi ahmad tidiani alalimu billahi addaalu ala allahi cheikh saydi ahmad tidiani waa xanaa fii ku bëgg si ahmad tidiane nekk fii bu la neexee nga ni hadratul imani hadratul islami hadratul ihsani bu la neexee nga jàkk ياك لوكسير نكو حين التقى حين الجودي حين الرحمة حين العناية حين المنة حين المزايا حين المكارم حين السعادة حين الإخلاص يحتجاني ما يحسن به الإله ما يعين الوصول حين الحق حين المعرفة حين اليقين حين الأسماء حين الذر حين المكنون حين الذات سيخ سيد أحمد تجاني ولا نحن صاحب القتمية ولا نحن صاحب الكتمية ولا نحن أبو الأباشي أحمد تجاني أدلولو كتا بنصير على غدنا ينتي على أحمد يا متسابقا ركبان نحو الجنان روحي وريحاني سخن التجاني أدي الألوكة من أصير على ختن قاسي العواجس مدة الأزمان جل مكة يا لنقن kooku moo doon rasulillahi gis nga buñ la laajee kan moo doon rasulillahi neel mooy Cheikh Ahmada Tidiane buñ la laajee kan mooy xalifa rasulillahi neel mooy Cheikh Ahmada Tidiane buñ la laajee kan mooy jàngale rasulillahi neel mooy Cheikh Ahmada Tidiane buñ la laajee kan mooy buntu rasulillahi neel mooy Cheikh Seydi Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu wa ardahu ana bi amin waaye nag tabarakallahu Cheikh Ahmada Tidiane moomu moo jël tariqa bi jox ko tabarakallahu Mouhamad al Haafas mu jox ko maam Mawlud Fall mu jox ko maam Abdoul Karim Diallo mu jox ko maam Limal Madiyu mu jox ko sunu soppe ba tabarakallahu maam Cheikhou Amadou mu jox ko sunu soppe ba kookoy kan maam Ahmadou Ndak Seck radiyallahu taala anhu ana ñuy bëgg maam Ahmadou Ndak dama bëgg ngeen sara xolle ba waa asamaan di ko dégg ñu màggal góor ga borom taraay bu jekk ba maam Ahmadou Ndak Seck radiyallahu taala anhu qad safara sayxu ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah divino. ak maam Mari Ngoone Ndaa maam Ahmadou Ndaak moomu moo jël tariqa bi jox ko kan jox ko Mamour Talla Seck Mamour Talla Seck jël tariqa bi jox ko sëñ Ibrahima Seck sëñ Ibrahima Seck jël tariqa bi jox ko sunu soppe ba kan Cheikh Madika Seck borom yàlla nee na borom taaral fuaad wa qalbil yawma fi dajarin lama ata nahyu min tiqaayi kajoori nahan nuhatu habibi humlatum najabaa'i man kaana siratuhu min azan ziri Cheikh Madika abul yatama wal masakini xad faala kadhalika al fuqara qulna fi al basari Cheikh Madika Seck borom yàlla nee na naa law kaana yufda liman sultan menyetuhu man yatuhu lakana yufda bima indana min akbari durari ana ñu bëgg ahmadu ndak ya ram la juróom am fa Mamadou borom yàlla nee na. moo tax moo doon Amary Ndack mooy maam Mor Talla Seck maam bi muy doon Amary Ndack am na ni 39 ans la am am na ni 40 ans la am waaye lu mën a xew mooy tëkkagul soxna bi muy doon baayam maam Ahmadou Ndack Seck radiyallahu taala anhu moo tax moom dafa tasaare tariqa si Amada Tidiane fii ci Sénégal moom maam Mor Talla moo tax benn waaye dafa ñëw ci moom ni ko maam Talla danaa la jox loo xam ni bu ma la ko joxee boo ko bàyyiwul ay bëñ ngay deewaale maam Talla ni ko. man nak dana la jox lo xamni boko bayiwul iman ngay dewalé looloy lan looloy allahumma salli wa sallim ala ayn rahmat rabbaniyati wa liqulatil mutahaqiqati al hayati li markazil fumi wal maani ana ñu bëgg mam taala sek mam taala sek borom moo tax benn waaye ñëw na fekk ko ca cóoti ni ko mamtaala dama bëgg nga jox ma salaatul fatiha keroog bi ko mamtaala joxee salaatul fatiha daf ne ko tey jii boo fi jugee ku la laaj kan moo la jox salaatul fatiha ne ko Seydina Muhammad moo la ko jox wala nga ne ko si Amada Tidiane Serif moo la ko jox ndax tey jii bi nga fi ñëwee rasulilaay nga fi fekk waaye tey bi nga fi ñëwee si Amada Tidiane Serif nga fi fekk sayxu siyuuxi abul abbas ahmaduna moo tax maam yàgg tin mi jaw mi jamoon amri ndaak ca sàq sàq dafa metti woon lool bi xare bi méttee ñu ñu fay benn waaye bu naan naan yàggatin ni ko lenn rek lañ bëgg mooy nga rayal ñu amari ndaak xare bi metti na bi xare bi méttee amari ndaak ñëw ci maam Seexu Amadou di ko wax fi xare bi toll bi muy wàññeeku ci lañ ko jam-jam-jam boo xam ni boo dugaloon sa loxo mu dugg ci biir yi ñu jam seen maam amari ndaak ngir baatu laa ilaha illa allah inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannata yuqatiluna fi sabilillahi moo tax wax jee fi nekk waaye mag ñi yàlla rek leen ñoroon mag ñi Seydina Muhammad rek moo leen ñoroon mag ñi si Ahmad Tijaani Sërif rek moo leen ñoroon yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yaqtuluna wa'dan alayhi haqqan fi tawraat wal ñu jëm seen maam Amari Ndak Seck jëm ñëpp dañoo jàppoon ni Amari Ndak dee na armée bi triste lool ba yàgg ci biir ba naan laa ilaha illa allah laa ñëpp naan laa ilaha illa allah nee leen laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah wax leen jaajëf si maam Amari moo tax tabaarakallaahu nga maam yàggatin mi jëmoon amari ndaak moo ñëw ca cóoti fekk fa Mamor Talla Seck ni ko man la yàggatin maa jëmoon sa baay ca sàq keroog Mamor Talla Seck dafa dafa siggi daal dugg ci biir néeg bi ba yàgg mu génn ni ko rasulullaay nee na na la sama baay nee na na la mu ne ko lenn rek laa bëgg mooy nga jox ma salaatul fatiha moom maam yàggatin moo tax yàlla xamul njaal benn yàlla mujj la xam moom yàlla deret lan ko jëndi lay laay maam amari ngoone ndaar moo tax sunu mag ñi bay bo ñu bàyyi leen rek ndax pas-pas bi moo nekk ca ñoom gis nga jumaay Thiénaba Bawol 1907 lañ ko tabax waaye bi ñuy tabax jumaa ji xam nga 1908 ci la raay bi ñëw ci la oto bi oto ñëw Thiénaba Bawol kon bi ñuy tabax jumaay Thiénaba Bawol oto amawul saxaar amagul woon waaye booba jamono jooju mag ña ñoo daan ñoo daan yenu xeer Cees lañ ko daan yenoo tabaarakallaa ñëw ba ci ba Bawol ñuy tabax jumaa ji juróom benn weer lañ ko tabax bi biñ ko tabaxee Mamour Talla Seck daf ni sallaaw bu yowmal xiyaamee ba rasulullaay taxawee si Ahmad Tidiane yi taxaw maam limal maa yu taxaw rusuma taxaw man maam Mortala Seck ak sama juma ji ak sama gaay yi ak seen jam-jam yi xan safara sayqu bada samba sadio ila maam amari ngoone ndaa Ibrahima Seck nag xanaa fii ku bëgg sëñ Ibrahima Seck nekku fii ana ñu bëgg sëñ Ibrahima koo kookoy kan koo koy doomu Maam Mor Talla sekk ku tabe ka nettali naa ko ki dem benn waaye dafa ñëw ci moom daal di am am tudd ni ko sëñ Ibrahima dama am tudd moo xam ni awma lu ma ko tudde bay ba bu bis baa ñu ray ma rek tudde ma doom ya sëñ Ibrahima Seck jox ko ñaari saaku ceeb ñaari saaku tabaarakallaahu ñaari bidigo diwlin jox ko ñaari saaku tabaarakallaahu dugub daal koy jox ñaari junni jox ko tabaarakallaahu fas jox ko sareet ni ko fas fekk sareet bi nag bu ngént li jàllee nga dimbali koo ko ci sa liggéey kookoy maam si Ibrahima Seck xat safara seyqu waxda samba sadio ilaa ku gën a sopp maam amari ngoone ndaag moo tax tabaarakallaahu moo tax si Ibrahima Seck nee na sama baay sama baay suñu alf suñu maam taala Seck tàggu na ma ñetti yoon nee bu bi dama ko fekk gusaas nee ma ne ko goor gi sa yoon bi dang ko dang ko nga koo lool ndax benn talibé la andal ku naan Ousmane Kep mu ne ko sallaw yoon yi mo na genn ci na ba mais dama ko ñaan Yalla bam nangul mako ko gis nga borom cër lañu won ko xamni safan kia na nga ñaan Yalla bam nangul la nga mëna a génnaat koo koy mamou taala mu dem ba wara ñibbi dem bisu dimas ñu ne ko goor gi yow ya ya téré won taggo bisu dimas ne mu ni waaw taggo budé taggo budé taggo bu mujju la bis boko défé يا قوم واجنب إني أذكركم خربا لدينكم تمام يدان غيرو bu di tàggoo bu dee bis bu mujj la maanaam bis boo ko defee baax na kon junj na ko ni dama war a wuy ju rasulillahi dama war a wuy si Ahmad Tidiane ne mu ne ko fekk ma cena mu fekk ko cena sama gerte gi laa bëgg ñu faraasul ma ko balaa dimanche mu ne ko góor gi looy yàkkamti bàyyil ba dimanche mu ni damay ragal bu dimanche du leen ko tal ndekete ca dimanche ca ngoon nga ci la Mamour taala si Alpha Mamadou ana ñu bëgg si nu bégal nga nu re Ibrahima sama dona yàlla nee na kooku koy sëñ Alpha Mamadou waaye bu mu ci duggee xam naa fi laay fanaan waaye dama koy tëjee nag sunu soppe ba Cheikh Madické Seck borom yàlla nee na ana ñu bëgg Cheikh Madické borom cene ba Kajoor borom jumaa ja borom ndox ma borom courant ba borom tëli bi tabarakallah kookoy kan kookoy kookoy tabarakallah xalifa maam Ahmadou Ndaak Seck kookoy xalifa maam Talla Seck kooko fi nekkal sëñ Ibrahima Seck waaye moo fi nekkal sëñ Alpha Mamadou kookoy Cheikh Madické borom yàlla nee na dëkkandum yaaram Kajoor am na xëy xéewal ngir doomu Alfa Mamadou borom yàlla nee na ma demee Faas di jàkkaarloog si Amada Tidiane dama ma am ci seex moo tax sëriñ Madike ku bëggoon si Amada Tidiane radiyallahu waxam alxuraan la jëfam noon alay mel addis la koy booleel borom yàlla nee tabarakallah bay ñasse yalla yalla barkel yalla yalla sam dañuy bañ guddal fa tabarakallah yalla yalla taxaw yalla yalla ar serigne baba ma ngi lay nuyu juuf di ziyara yitte yu bari woon na lool nga baye lepp ñew and ak ñun ndax tabarakallah jëmu ju tedd ji di ñasse yaakaaru ñu won sax tabarakallah kàddu yi dina agsi fii ma ngi naan bacc naan ko xamna 5 minutes lay wax rek waye fa tabarakallah cofeel rek tax sha allah